na ko amee njëriñ tànk yi itam nu mu gaawee kon na ko awee ci aw yoon kon nag war na noo seetantal lan wóor ne ca la sunu ne nu jàpp ko jàpp gu wér te dara bañatee tax nu won ko gannaaw lépp lu nuy jot wala nu di ko defe nu bañ cee sukkandiku xana wéy ci lu wóor rek ngir sunu borom li mu wax moo di يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون dellu ne wala takunu kal sina xaalu samihina wahum laa kon nag teqantal baax na ci ñun kon nag ginnaaw yàlla dafa wax ne allahu yabda'ul xalqa suma yuhiiduhu suma ilayhi turja'uun war na noo daal di xam ne gannaaw fa moom lañu jëm la mu ne moo fi mat a indi loola doo fa mat a yóbbu te moom dafa wax ne wa tazawwadu fa inna xayra zaadi taqwa kon nag loolu ku nekk xam na ne mooy la fa mat yóbbu yëmul foofu nga see ne yaa ayyuhal lazina aamanu ittaqullaaha xaqa tuqiitihi wala tamuutunna illaa wa antum muslimuun kon nag xaqa tuqiitihi moom la ñu war a daal di seet ngir moom la ñu digal nu jàpp ko xaqatu xaqatu xeeti yii man ne mu ko mën a jàppee moo di jàpp ak dëgg te dëggal ko képp ku ko def mooy la wér wala si jaa bi si dixi wa saddaxa bii ulaayika humul muttaquuna lahum maa yasaawuna inda rabbihim saalika jazaa'ul muhsiniina li yukaffira Allaahu anhum aswa allati hamilu wa yajziyahum ajrahum bi ahsani lati kaanu ya'maluun kon nag ba loolu gannaaw loolu wax nañu ko ba noppi nañu ñëw nag ci taqawaa ci boppam waxtaan ci yéem koo leeral lu man taqwa ni ma ko mën a misaale mu ngi mel ni garab la goo xam ne cib xol lay sax ci la ñu koy ji di ko ci suuxat ba mu màgg ci ba meññ ci ndox mi ñu koy suuxate mooy imtisaalul awaamiri wajtinaabil manaahi képp ku koy suuxate garab googu dana màgg dana meññ te bu meññee njariñal kese rek lay meññ loo xam ne lépp yaa koy moom kon nag nan góorgóorlu ci fexe ba garab gi nu jëmbat ko ci sunu xol ba mu sax ci nu di ko ci suuxat ba mu màgg ci ba ba ba meññ ngir nu jëriñoo meññeet mi meññeetum garab googu mënees su ko sax lim waaye am na luñ ci war a tudd waaye yu najji laahu lasina taqaw bi mafaasatihim laa yamassuhum soow wala hum yaxsanuuna ci lay bàyyi ko wa man yattaqillaha yaj'al lahu maxrajan wa yarsuquhu min haysu laa yahtasib ci la bàyyi ko yaa ayyuha allazina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqan loo xam ne loolu mu ko naqaree andi na lu jàmm andi na lu sutura andi na lu yërmande andi na lu teraanga te bu ñu yëgoon seen lu ko ëpp bu sëñ Tuubaa day gis ba dafa neex lool ba bindoon na loo xam ne donc yëpp a ngi koy jàng di ko wax waaye gis bi ko teg seen bët ñu ngi koy door a ji xam nañu ne daf koy gisee mu sori rek ci ñoom bu yàlla bu dafa baax yi rek war na leen xariban da koy gisee moom mu jege dina mu sori